foog yéen ñi jege Sonko <clears throat> ngeen waxloo Sonko dernière déclaration bi Ousmane Sonko mujjee woon def bu mu a toppeewul Macky sàll que moom pare na pour baal ak njabootam ndax moment yi toll nañ foo xam ne bu Sonko deful déclaration xeex lañ jëm ma ñëw une minute Macky Sall justice xam ngeen justice wax na ni jubilé c'est bien beau mais nit bu xeebee boppam ba dem indi ay géwal ñu ko nit bu xeebee boppam ba lu mësul am senegal am fii mooy ñu koy woyal joyeux anniversaire nit bu xeebee boppam ba bëgg a commander justice nit bu xeebee boppam ba ne moom candidature Sonko nekul affaire loi mom la nit bu xébé bopam ba tok si kanam mbolo ne eh da ngeen may ñaan njëkk han ah. walé ko troisième mandat defu ko mais pour candidature Ousmane Sonko lii mo taxal man la justice la justice day def en quoi man mo tax ay féliciter juge di rep rep nekuma ci Sonko. léegi nag pour Sonko nekk candidat si moom Sonko la dépendre ñoom Pape Alé dañ naan xeexatul dañuy éviter le chaos léegi nag kan mooy xeex ku dul Macky Sall moom miy génne policiers yeeg gendarme yeeg ñëpp feesal leen ci tali bi foog ni justice day def lu ko neex kan mooy xeex ku dul Macky Sall kan moo soxla xeex ku dul Macky Sall ay wala ana chaos bi ngeen doon wax

fekk CEDEAO fene ne Ousmane Sonko Pastef dafa xarab Pastef parti criminel passif li passif li la justice sénégalaise ñëw wax li te te du justice sénégalaise moo ko wax de c'est un juge qui l'a dit te li mu leen di wax laa leen wax gouvernement ak état bokkul même si état faible y a des hommes intègres même bu état faible y a des hommes intègres pouvoir cassation bi mën na ñàkk ñoo ne xeexatuñ xale yi dee nañ carrément lañ dee man sama équipe waxuma la des destitué ko wax ma la non da ngeen ñu bëgg a xeexloo gars yi bëgguñu leen xeexloo de xeex pour am njëriñu askan bi la xeex pour am njëriñu Sénégal xeex pour changer Sénégal tey nag ñun ay mag lañ de xale yi ñu ngi grève ñu ngi anticiper loolu c'est le bien du Sénégal dëkk bi mu ngi ci tension boo xam ne tey waxuma Macky Sall ba laay waxaa ah, bi mu ne dangeen ngeen may ñaan njëkk ah. tey grand ma joxe rek benn kot am na ku fi njag Pape Alé Niang tudd temps yële passé mu njagalum te mu bindoon lettre bu rëy ba bi yaayam décédé Rufisque yónnee nga dem nga fa te loolu c'est la famille moo tax grand Sénégal toll na foo xam ne maman yi toll nañ foo xam ne seen xol toll na foo xam ne ñu bëri feebar nañ ñu bëri dee nañ grand tey bu ma sañoon lii justice décidé

ay complot ñi di wax waxu delo ci wat Ousmane Sonko ñi di wax waxu kon man comprendre mo procès kon duma ci wax mais tay le justice décider ni ma lay ñaan bëggu ñu xex gaay ni lañ bëggu ñu xex comme politicien ni lañ bëggu ñu xex ah, bayil sonko dem wala ñu jël militaire yi tek leen xam nga lan lay bañ ngay defat pouvoir à cassation yooyu yëpp da ngay yokk jàngoro si réew mi adrénaline bi day gën a yéeg ndeysaan xelu maire yi paa yi ñu ngi jooy mu may ñu may woo kër kër danañ eh, déedéet du loolu grand du loolu xam nga fu xeeb sa bopp yow dem ba jiite réew mi jiite Sénégal jiite sa kas yow jiite sa set mooy seen diine ji nga jiite ko jiite sa lépp ba pare nañ la introniser buur gedde man video boobu laajoon ñu ma jege keroog dama ko seetaan dama jooy xaccit ma ne catastrophe nekk nit mën na xeebee nii boppam allah akbar dama jooy parce que je me suis dit parce que El Hadj Omar Foutiou bu defoon comme yow bii heure du am li mu am El Omar Foutiou nu mu sant taal comme ay sete tal sal duñ ay doroodo de déedéet bëss bu mo duggé ci domaine alpulaar rek di ngeen xam loolu war a xam El Hadj Omar Foutiou est loin toro do Fouta les Allemands c'est des kan les li affaire <laughs> affaire yéme mo xew Sénégal yo xam dañ ni nëbb lu bari mais c'est pas l'état taal déedéet taal ay kaste lañ won mais ci bir lolu la yalla mo tass affaire kasse bir foot mo tax mu andi El Omar Foutiyou dal bir foot pour mu meuna tass upp xam-xam almam ya fa nekkon looy wax ci histoire dang kay xam moo tax yow grand xeeb sa bop mo yoboti ñu lay introniser sa bop tax Farba Ngom mo gëna gëm bopam maintenant te intégré parce que da nga sa bopp te kilifa bu xebee boppam day am foo xam ne boo fa tollu bunt bu rafet moo gën palanteer fi réew mi toll nii nag xam nga ne Sonko day dem ñun xamoon nañ ne foog ñu xeex pour jot réew mi te xeex boobu c'est inévitable ndax yow jël nga say décision ba pare màttu nga ba pare mais tey nañu wàcc suñuy orgueil doom li lay war moo tax man leen foog Sonko wax si waxam na dalal xelu waa ji bu waa ji toppee ay maître El Hadj Diouf nag wala ay maître ay maître ba ne dañuy yéegal affaire bi cassation nag ak ah, gars lu golo xam bootee doomam affaire yi ba le 26 décembre la de bu ñu naree yóbbu janvier lu golo xam bootee doomam man li ma leen wax rek bu dul Sonko. Politiciens, là tête Sénégal kooku en ñuy jaral suñuy bakken mais politicien du jiite Sénégal du les militaires soit on va prendre le pays par les armes soit par les jurons si c'est pas Ousmane Sonko mais on ne dit jamais de la vie parce que Ousmane Sonko exprime l'ennemi. on n'a rien contre les autres sincèrement man pour wax un candidat ça ne me dérange pas on n'a rien contre les autres candidats Bala ngène ko doon xam tey ñu Ousmane Sonko bokk na ñu ne tay Mimi Touré bokk na ñu ne tay Karim Wade bokk na ñu ne tay Khalifa Sall bokk na ñu ne tay Cheikh Bara Doli bokk ñu ne tay Bougat bokk na ñu ne tay diw bokk na ñu ne tay Pape Djibril bokk na si ngeen xam on n'a rien contre les autres candidats ay Sénégalais lañ. te kiy wax si écran am na fu muy toll ñun ñëpp dañuy uuf intérêt Sénégal mooy lan tëddee njaaxaanaay défendre intérêt Sénégal moo ñuy gënal on a rien contre les candidats mais injustice bi ñu teg Ousmane Sonko moo ñu sonal rien d'autre mun ñu nekk Sénégal bañ Pape Djibril Fall te ne man gëwuma loolu mënta nekk anecdote Cheikh Bara saaga naa ko fii ndey ci live matul une semaine Cheikh Abdou Bara Dolé moy bimu waxé may mëna ma saga ndayam ndeyam live matul une semaine yalla bolé ñu ci ben restaurant fi bir Paris mais jëru bimu ñëw bimu dafa dafa am grandeur bima am xamné man midi di ak ki tok ci restaurant bi bokul moom mu xamné ki doon live tam di saga may mëna a ak ki tok ci restaurant bi bokul Idrissa mën na ma bu defu mujjé payé boo yëpp ci bir restaurant bi sama kanam chez Lamine restaurant la discipline

kay Sof xamna ni gaay ngay wo kay Sof taalal telephone bi gaaw ndax maram Faye Sall moom moment li muy def man xam nga rek duma dugg mo ngi crise cardiaque homme de justice yëpp wa am ngok nak yow mi sante sek tay war nga rus tay bu ñuy saagandey juge tay bu Amadou Sall sañee tok di saagandey juge wa APR yëpp ñu ngi tok ndey juge dem leen ci panel wa APR momay ñu ngi xadaaw juge yëpp gaay nga xadaaw juge lan mo tax Mamadou sek ya tax ma xam jallo ya tax ya tax yena tax gay yena justice Sonko ni juge lay waxal yeen ngeen ni Sonko ni justice lay waxal da ngeen ni dul Sonko juge la waxal waxul ak justice sénégalaise ay juge la waxal Sonko waxul ak journaliste sénégalais wa Sow. waxul ak journal waxul ak presse sénégalaise ay journaliste même TFM Sonko waxul ñoom mais ay journaliste la waxal transformé waxu Sonko yi bëgg nag bëggeen nit ñi Sonko dina joxoñ Sonko ku muy joxoñ bu Sonko déedéet Sonko du fi joxoñ kenn Sonko du fi joxoñ kenn bu ñu bëggee jàmm dañu ñaan Macky Sall bu bu état dem pouvoir en cassation point final ñu yamale fi ciow bi adrenaline bi wacc té lool nak tay sëriñ si lay ñaan pour tëj yeen sëriñ si jiiñ nañ leen lu nekk ya ngeen ni wax lu nekk kenn déggu leen bu leen ne kenn déggu leen Ousmane Sonko mu ngi leen di dégg mais Macky Sall mo leen nangu a dégg mais yow tey sëriñ Mountakha Mbacké yow tay sëñ Mbaye yow tay sëñ May mën nga wax tay bu su tay te do ci ñaaw bàyyi may mën nga wax te doo si ñaaw eh grand Ibou Fall waaw sama grand baa ngi nii de barki Serigne waaw kaana man kaana la woo kaana laa billaay ñii la de liggéey rek ku fi nekkal yàlla yàlla nekka la tey bàyyi may mën nga wax te doo si ñaaw bàyyi may li ngay def aayul ñaawul vice la nit nga sénégalais ñoo leen teg demi jël moo tax seeni ay ngeen koy nëbb déedéet man tey su ma doon tey xalif nekk sa wet war télévision yi dama koy taal parce que yow loolu yow la ak sa borom ça concerne personne bu mu tax ñu xeeb la bëgg la xeebloo sa bopp bëgg la xeeblu déedéet mënoo jiite plus de quarante six millions de disciples gouvernement bu tuuti lu matul trois cent trente personnes war la yeew yow bàyyi maa maa bañ damay xam lépp lu xew ci biir mais dama naan muut di xool ñëpp ku nekk di jëf say jëf parce que am na fi ñuy toll rek ñun Sénégal dañuy tëddee njaaxaan na bàyyi maa yi ba senegal booloo jeex yaa sa ëpp taalibe ñi nekk biir Sénégal ñoo xamul lan mooy régime ñoseen bi ñi nekk Sénégal ñoo xamul lan mooy ñoseen biir Afrique rien que bir Afrique rien que Nigeria, rek ya 240 millions xawma 50 millions d'habitants rien que là-bas rek Baye Niass il a plus de 26 millions de disciples rien que yow ñooñu Baye maay doyoon nañ la kon lo senegal dara lo Macky Sall dara soxlawoo Marème Faye Sall dara Baye maay problème bi moy tay te dil ñaxane nee nañu dalal rew mi Baye bu la nexé nga wax yow la yéen nii yow la Baye Mahi waxal Baye Mahi waxal li nekk sa ginnaaw dafa diis waxal ndax dama xam ne dëpp non yaa ngi ciy jëm yaa ngi yaa ngi wax yaa ngi commencé di étouffer waxal Baye Mahi waxal kenn du wax lépp mais tey bésu wax la ndax kilifa nga yàllaa la ko def ñun defuñu la ko ah sëñ Muntaxa bu yónnee sa porte parole li lay war a suuli waxal sëñ mbay si tey tey réew mi tey dalu Sénégal tey si yéen la wéeru tey